yàlla ngeen ko defay jiwén jiwén jiwén jiwén di fekk na loolu lañ ko day njëriñ loo fekk ñu ko mosal liggéey bañ ko wàcc jiwén jiwén jiwén di fekk ma fii ci di ngeen yokk ni yokk di ko def di ko def faraamaan waaw yoon wu jëm alaxira moom du gën a yàgg rek dégg nga ngeen yokk jëbal te wér jëbal xéewal yi yokk ba yoon bi man di dox di dox la jàkk nangu dox di dox di dox nangu jàkk nekk ay at at at yàlla suñu tax ñu ko def da ngeen dugg ci di yokk te fekk la alhamdulilah dangay ci yàgg suñu ko waaw yàgg lool kon nag dag noonu ñun daal dañ doon yóbbu jëfi ndog mais da nga yàgg lool yàgg yàgg léegi ci loolu yàq. ndax damaa xam sa tam lu jiitu. waaw li may toog. waaw waaw. man de des na sax. ndax laaj fi mu ne. su ñu yokkoon ak taw ñun da nga ci xam. waaw xam naa ko bu yàgg. ba nga ba mu toogee te nga yóbbu fa keroog càkk na joojee. naan la sëñ Mbaye ak sëñ Daam ak sëñ Mor. moom jàmm yàlla daal mooy nguur gi dikk ñu gis ko teg ko ba. yàlla suñu weer ak mu dellu ñu yow daal ah. aj moom xaw naa far bëgg. wala wala xaw koy liggéey ci biir. war laa nopp. war ngaa boole guddi ak guddi. loo mën ak loo mënul lépp. lépp ndax fay gars yi sax. te ne suñu jaam ñi dañoo man ma bari. man jaay bi ndax seen i fël ba ak solo ba saa yi. soo defee benn ma fay dugg. ndax ñoom amuñu dara bay jaay ci man. man duma jël da. kon duma leen fay maanaam duma la fay kër kër liggéey lu ko daal benn bu ne daa la fay fukk fukk bi na ma fay téeméer téeméer mooy jëm ndax nee loolu mooy ci war suñu kilifa bii di borom Tuubaa la ne yaar yi taxana yi dara garu ci yàlla lahu tabaraka wa taala am soxla ko ak dimaayi boobu yàgg la mu xam nga loolu tax moom mu tani mhm. ndax du jeel ci soxla est-ce que dawaa taw bu loolu tax su leen di fay nag mhm. lu ko ëpp leen ndax soxla ko tudd jeel mais yaar yi taxa nañ mhm. dara gaaw ci laahu tabaaraka wa ah. am soxla ko ak di may ba mu la mu yor xam nga kooku nag kuy liggéey ngir moom la feere ngol ndax moom di jël mukk te soxla bu ci li mu yor dama adama yi ak man am barke sëñ bi am ñaan ci barke sëñ bi ngeen mucc te yokk lool yëg biti seen mbir yëpp jub ngeen am ndimbal am tawfeex ci barke sëñ bi yéen ak loo ci seen njaboot barke sëñ bi yàlla bu déwénee bu ngeen di ñëw lii ñu leen andi leen muy doon ci rajo maa koy ñaan ci baaxu sëñ ngeen yàgg lool mucc lool yokk lool ànd ci barke sëñ sant leen bu baax sant leen bu baax maa ngi ñaan ci baaxu sëñ bu déwénee lii doon ci rajo ngeen mucc lool yokk lool yàgg lool ci baaxu sëñ am ndimbal am tawfeex ak paju aajo am mbir